amul kenn si ñoom ko ñeme les terroristes sont au Sénégal. et ils sont portés par qui. ah non dafa. cette phrase est importante ñu si biir dëkk bi. ils sont qui ces terroristes là. gis nga bi ñuy sottee le verrou de Idriss Déby. bi ñu sauté verrou woowu. à partir du nord du Tchad. jusqu'en Mauritanie lépp maab na. jël nañ lépp wax naa la fi sànq ne des grandes puissances sont en train de se réunir y a des choses yoo xamante ne kenn du ko wax télé. sance ne se dit pas. mais mais les terroristes Sénégal ils sont où. la typologie des pays non bu ñu nee terroriste mi ngi Sénégal du koo xamante ne a fekk commencé nga ne kii terroriste la dafa am lu ñuy wax la typologie des peuples Sénégal tey dafa am nature géographique am nature sociale la nature du sociale du Sénégal c'est un pays à forte imbrication sociale et sociologique ñun diine ni mu mel fii mais ñu bëri ñu ngi fiy tabax ay juma yoo xamante ne xëy mu taxaw. mais demal nga raaj renseignement si jumaa yi fan la jóge financé de l'extérieur voilà loolu ça vient d'où et li may wax nii man dem naa plateau yu bëri yoo xamante ni bi ma waxee li may wax ba pare ay journalistes si boppam ils m'ont pris en aparté confirmé li may wax yëpp toog naa ak ay kilifa yoo xamante ni li may wax nii confirmé nañ ko moo tax man la suñu état yi dafa am loo xamante ni amuñu ko dafa am benn système boo xamante ni te 2024 loolu mooy téye suñu dëkk. au plan géopolitique. Mhm.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 moo tax bu ñuy wax affaire état état du caaxaan. mais